et mieux encore euh, cette manipulation c'est-à-dire que non seulement dafay jouer sur ce que nit ñi lu ñu bëggoon dëggantaan mais aussi day jouer sur l'émotion des mensonges. tout à fait xam nga loolu ku ko dégg. tu es scandalisé. Mm-hmm. c'est-à-dire immédiatement tu a ranges. non non non qu'est-ce soo ko bëggoon. da ngay commencé bañ. Mm-hmm. donc gis nga manipulation bi dafa joué si ay leviers yu bëree bëri bëri bëri bëri. loolu moo tax comme dit Albert euh, Mamadou c' est important que journalistes yi aussi xool seen bopp parce que tey soo xoolee médias yu bëree bëri bëri bëri nga déglu télé yi y' a plus de l' opinion que de l' analyse. oui bi ça renverse euh, opinion bi li koy indi mooy quand tu as ton raisonnement n'est plus rationnel c'est plus rationnel tout à fait ah raisonnement rationnel mooy analyse da ngay am benn problématique nga tegee hypothèse chaque hypothèse nga envisagé ko mu yóbbu la fen na Parce que c'est une démarche rationnelle. Mm -hmm. Au départ, tu n'as pas d'a priori. ne woo ñu ne woo weex na mais c'est les faits c'est l'analyse moo lay conduire ah donc lii am na donc lii am na lii am na kon weex na. mais bu dee opinion.

paroisse benn benn benn euh, benn parti bu muy defaan même si ça dit pas son nom tu la sens ku wax xam ne kii fii fii la féetee mm-hmm. alors que doo boobu détachement et ça même ça même biaisé la notion de chroniqueur moo tax ma ne Sénégal lu ñu jugal yàq ko mm-hmm. on a biaisé la notion d'influenceur on a biaisé la notion de chroniqueur parce que d'habitude chroniqueur par exemple soo gisee damay lay yow bu ñu la wooyee am na benn domaine boo xam ne wala benn milieu boo nekk xam nga ko maîtriser nga ko mun nga si indi indi plus-value un économiste dans le milieu politique un homme politique il peut venir faire des chroniques sur la politique parce que il y xam na luy politique xam na les réalités mais souvent comme je euh, di gis koo xam ne le chronique mais tu dis kii bala mooy domaine am. léegi analyste analyste ak chroniqueur. non c'est-à-dire le chroniqueur non la différence c'est moi je j'oppose li may opposé mooy analyse ak opinion. ok mm-hmm. cest dire je dama pour mettre la plupart des chroniques. analyser wuñu hmm. seen opinion la ñuy faire partager ok hmm. ok et ki di opinion am na benn idéologie bu ko sous-tendre hmm. moom la ñu bëgg faire gëmloo nit ñi seen argumentation donc maintenant au Sénégal y a les opinions pro y a les opinions contre ok <laughs> les chroniqueurs pro les ku si wax bien sûr li nga xam sa tànn alors que <coughs> le but le but le but le but euh, le but du jeu c'était d'éclairer kii déglu l'aider a comprendre ak mu décision parce que on parle de citoyen pour que le citoyen puisse choisir il faut mu am information. yow rek yaa koy jox information bi aussi mu am possibilité choix comparé c'est pourquoi on parle de les médias doivent diversifier ñu pour ñu nekk benn sonne cloche. léegi maintenant loolu moo tax mu mun a choisir mais bu dee léegi maintenant amul boobu information amul les éléments qu'il faut nu muy choisir et su munul choisir aussi donc du mun jouer euh, sa citoyenneté. léegi ñu ñëw ci beneen. Euh,